mais pourquoi pourquoi tey lan la lan ngay lan ngay wut parce que j'ai am na ko ma ne wooy actuellement euh, beaucoup de gens ils cherchent à faire de la euh, de la publicité ils veulent se positionner euh, xam nañ ne euh, le président Macky Sall le part donc dañ nekk di di wut un un positionnement et donc dañ naan candidat la ñu alors que duñu dem jusqu'au jusqu'au bout voilà même sa candidat boobu ngay recevoir sax Euh, boo moytuwul ci ñooñu la bokk mën a ah, xam mais je vais Sénégal moom réew la boo xam ne bon ku nekk ak sa sa sa commentaire mais man personnellement man man damay su may wax damay wax dëgg personnellement jàpp naa ni dépassé naa ci réew mi ñu nekk muy Sénégal capitale bi di Dakar dépasé naa di di positionné wu ci dara parce que li fi baax yëpp sama loxo mi ngi ci biir. dépassé naa. fu may waaw yu fi baax yëpp sama loxo mi ngi ci biir. ci waaw dépassé naa di di di di positionnement déedéet su ma ko doon def duggee ko après du ma bàyyi ba Macky Sall di dem may positionné wu noonu. mais c'est quoi c'est quoi lan mooy sa motivation. sama motivation dama yàgg a toog. ma mosuñ laa si ci euh, espace politique bi mosuñ la dégg nga jël euh, position. réew mi tàkk na réew mi metti na lu nekk jaar na fi mosuñu laa dégg alors que tu du droit à la pour pourquoi nga toog ba tey nga bëgg a jël laa parole et nañu euh, kaay leen jox ma seen kàddu ma jiite leen. bon d' abord man waxuma kaay leen jox ma sama seen kàddu parce que Sénégal si soo xoolee fi ñu toll nii tey euh, man damaa jël sama responsabilité ma taxaw laa ci réew mi si ñaari aspect laa ko teg mooy li ma fi jot a def. ak ni ma xale yi yaakaaree loolu moo ma indi tey ma laaj réew mi